war ko yóbbu livraison nga sàcc livraison bi ak yooyu maanaam wàllu vol bi mhm. par rapport ak euh, si secteur bi am na ñoo xamante ne fu mu nii ñu ngi koy bëgg a yàq aussi d'accord bu ma euh, posé une question tellement pertinente ma nga doon mhm. xaar aussi mhm. parce que xam nga tey ku opte nekk livreur ñu jox la benn colis nga war ko yóbbu fu mu jëm yeggul nga am noo ko jaar def lu la neex loolu ça nangage que ki ko def loolu man rafetlu ma ko te sama association bi parce que nit ki bu la wóoloo ba am see confiance jox la li nga xam ni daf ko yittee ne la yóbbul mi nii vite fait normalement war nga ko teg ci yoon bi nga xam ni moom la noonu la ko bëggee toujours damay ñëw si cadre formalisation tey mhm. bu ñu formal bu ñu woowee formaliser ñu li ñu bëgg teg teg bu nekk am plaque am numéro waaw super tey boo sàccee alalu jàmm dina la mën a identifié repéré identifié la. Mhm. parce que métier bi dafa du du dellu ginnaaw de. li ma la wax nii day gën a avancé. te muy dëgg. parce que foofu la ñu toll tollatuñu di toog di perte temps. Mhm. ku si ne da ngay bëgg li ngay def def ko après mu jeex quoi. loolu la si asma wax léegi nii. Mhm. maa ngi maa ngi maa ngi encore une fois. déclarer sama mbokk livreur yëpp. ni leen métier bi dafa nekk métier bu noble. métier la boo xam ni c'est reconnu par par par par tous les pays que ça soit en Afrique que ça soit en Europe. kon yow mi def livre da nga normalement da nga war a nekk nit ku correct. waaw nite nit ku nitee di mhm. sol dàll yu rafet. Mhm. di sol jiin bu rafet. di sol lacoste bu rafet di xeeñ lu neex. di mhm. pañe sa bopp di xeeñ parfum. parce que livreur bi lekk bi lay jox nga ko yóbbu sa kër. wala di nga yóbbul nit ki yow mi ngay yóbbu da nga war a set. da nga war a am dentition yu rafet. da nga war di di ree. nit ki nit ki. nit ki nemme la soññi sa image soññi sa image. fu ne laay dugg. très bien man damay livrer. Ibrahima Wade même àndal dafay livrer. livra livraison bi yàgg na ça fait trois ans. maa ngi ci si laa takk jabar. si laa joxe warigal. si laay fay sama néeg. am nga sama jabar maa ngay sama firdaw. yaa yaa yaa may yaa may daane. waaw waaw nekk jigéen bu baax. ni ma bëggee. papa mag yaayam xeebuñu ma. dëgg la pourtant je suis diplômé je suis j'ai mon en droit. Il y a des diplômés dedans, dans, dans, fait, dans cette tout association. Tout à fait, a des comptables, mmh. des électriciens, des. koo xam ne nii rek. Mm. tey mi ngi si métier bi am nga am nga diplôme. Mm. mais bañ a toog bañ a ñaan bañ a sàcc moo tax nga jënd sa moto def cek cek. maanaam corps métier la boo xamante ni da ko créer pour mën a euh, secourir seen bopp. Mm-hmm. parce que tey jii nii bu ma déggee nii nga am master en droit. Mm-hmm. je m'attends à outre que justement càq-càq bi. Mm-hmm. xeebu ñu ko benn yoon waaye dafay wone encore une fois ñàkkum yaafusum doomum Sénégal. il faw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon ñun neex na ñoo bu max. du dëgg neex na ñoo jàppale. du dëgg kon nag mais nag asma foofu nga baal mu tuuti rek pour pour pour dolli ci li nga wax. contribution ak conseil sax laay wax. Mhm. bu leen fàtte ne jeunesse bi ñu ci bëri bien avant l'histoire de Tchad Tchad et tout ça xale yu bëri dañ naan faral yor ay scooter parce que c'était à la mode nangam nangam. donc par concours de circonstances ils se retrouvent aujourd'hui au chômage ils ont leur euh, moto, bien di doxaani nangam nangam commencé di am ay besoins. c'est gisee métier bi commencé am. Mhm. dañ ci daal di a bërëxlu te ñooñu di nga ci gis ñoo xam ne dañ naan agressé di def naka sulul noonu kooku su ñëwee ba gis affaire ba opportunité dem di livrer ji jikkooy agresseur boobu day des ci moom donc d'où la nécessité ci la wax Asma wax c'est très important mhm. la nécessité de formaliser ce métier là pour que ñu mën a xàmmee kan mooy kan li ma la bëgg expliquer foofu waaye nag ci formaliser bi bu ba laata nga ñu ñëwaat ci mhm. c'est-à-dire aujourd'hui il faut tamit ngeen am ci formaliser bi ni nga ma ndax boobu boole ngeen ko mhm. euh, ci seen liste de doléances ou pas mais il faut vraiment quelque chose qu'on déplore tous et vous allez tous être d'accord avec moi mooy la relation client rapport client il faut que nit ñi muy taximaan ba parce que ñëpp kuy yëngu ci transport def ko sa bàyyum waar mhm. war nga am rapport relation client il faut que ngeen def une formation peut-être de dix jours mhm. boo xamante ni comme yéen yéenee association bi mhm. te li ngeen di mbëbët bu demee ba antu il faut ngeen jël ay professionnels de la communication ñu former seen ndaw ñi wala bokk yéen ngeen former leen ndax képp kuy def transport yaa commercial yéen a yem wax ju neex dalaa war Euh, respect peut-être yéen ñi mun nañ ko bañ a wax ci mm-hmm. ñoom dañuy xëy na téye seen mm-hmm. téléphone tout le mm-hmm. temps parce que moto lañuy ñuy dawal deux la mais dañuy koy euh, nemmeeku fii di gis ne niñ da ngay gis kuy dawal di yor téléphone am taux de mort yi am ci accident yi par an dafa bëri trop ci Sénégal te problème de circulation la ñuy moytu bu baax a baax indiscipline bi tout ça voilà et puis le rapport la justice casier judiciaire vierge waaw pas des repris de justice Mm-hmm. yooyu yëpp c' est des choses parce que nag yaa ngi wax naan jukko nitee mooy mën a def liggéey bile. Mm-hmm. kon nag réinsertion sax naam am na ndax nit mën na dem juum tëdd kaso mm-hmm. dikkaat doon nit bu nite juum te dong dugaloon ko foofu mais nag ngeen tàggat leen ci ñu xam liggéey bi lan la ba tax ne kenn du leen si nag sama koñ fi ma dëkk Médina toog si suufu garab yi di naan ataaya di def noonu leen neex. mais tey depuis bi métier bi xewee ñoom ñëpp bàyyi nañu loolu. macha allah ku si ne am nga sa moto. di daw di ñëw dimbali say pap wala say parents ku si ne yaa ngi koy def amatul léegi perte temps mooy ne métier bi ñuy def nii kenn mënuñu si dimbali ku dul état formation boobu nga doon wax nga doon wax si problème mu correct discret loolu yëpp ñu ngi ci yëpp ñu ngi suñu programme. très bien mais loolu mënuñu ko mën nañ ko mën nañ ko mhm. a tax ñu yegg fi a jëm kenn mënu waaw loolu la ñu bëgg mooy que li ñuy lancé mooy état nañ ñëw dimbali ñu si. Hmm. am na ñu moto am nañu xam amuñu doole am carte grise hmm. amuñu doole am assurance amuñu doole am permis tout à fait hmm. da moto am CMC kese. boo daw si tali bi gis nga li xew si tali bi. du lu ñuy wax quoi. mais lu ñuy gis la ñëpp teg seen bët. ñun lu ñu bëgg mooy état ñëw. regrouper ñu. le ministre daan ñu. may ñu carte grise ñu junduñu de dañu koy ñaan mu may ñu carte grise. Mhm. may ñu assurance. Mhm. may ñu permis mhm. bu ñu demee nag bu ñu formal ñu ñëpp nag. mais encadrement administratif bu ñu demee ba ñun ñëpp ñu am loolu. keneen ku bëgg ñëw si métier bi rek dangay jaar fi ñu état jaar loolu. am assurance vie aussi yónni nit. dara manqué di nga xam noo koy identifier. pour mu delloo sala parce que boo xoolee am na sax benn mbokk bu ñu tëj fan yi ci affaire transaction. benn waaye moo ko waaw ni ko demal nga retiré ma nangam mu retiré ko ni ko dugal ma sama compte ba pare client bi des ak waa ji moom kesku bi. ba ñu mujj defeer yóbbu rëbës kooku amul kooku taxawu. maanaam ñi ñi leen di boolee di jël ay peut-être pas ràññewu ñu ko Sénégal mais da ngay gis koo xam ne dañu jël drogue on a vu sur internet. Euh, mooy tous ces corps de métier GP càq càq. taxi ah, vous êtes ah. en danger. il vous faut une protection loolu jël nañ si ay mesures. Mm. d'ailleurs engagé nañu benn avocat sama élité moom professeur en droit. Eh mooy Jim Colli maa ngi koy nuyu au mm. moom vraiment mu ne professeur bu baax ku modeste ku sobre. Mm. ni vraiment cas bu ngeen mënti am ci cas yooyu man j'ai pris mon engagement jël leen en charge. parce que loolu bu ñu ko deful parce que ku mel ni man mën naa génn di livrer dara ndog-ndog dal ma ci tali bi. kan moo ma jël en boo woowee wootee sapeur pompier balaa ñuy ñëw c'est tout un problème dañuy def une léegi ñun ñi nga xam ne ay membre association bi waa association bi jiital ñu mm. ñun am nañu benn caisse sociale boo xam ne képp koo xam ne am nga si lu la dal rek mm. dana la jël en charge mm. très bien waaw alors par rapport ak seen mbëbët bi fan ngeen ci toll yónni ngeen lettre bataaxal wala dem ngeen foofu recevoir nañ leen accueillir nañ leen déglu nañ leen où est-ce que vous en êtes pour l'instant pour dire vrai rek mooy bind binduguñu benn lettre bind leen ko nag waaw moom la ñu bëgg quoi mm-hmm. mais cest balaa ñuy bind fallait ñu wax nit ñi ni leen. Mm-hmm. lii am na. Mm-hmm. te ñoo ngi ci. Mm-hmm. di faire appel encore une fois livreur yi nga xam ne bëgg nañu adhérer ci association bi. tout à fait nañ ma jël. Mm. sama numéro 77. 710 18 06. ñu def ma sëñ ma adhéré leen. Mm. parce que lii rek lañu mën def doon benn say jàppalante liggéey. am na benn formation aussi bu ñu bëgg a def sur euh, comment dirais-je pour livreur yi nga xam ne nii dañuy mm. daw sans casque. nañu bàyyi loolu. dañu leen bëgg def formation mu xam nit ki booy daw si moto bi toog ci di xam nooy solee sa casque di xam ñu orienté la aussi si code de la route defal la formation si code de la route xam nooy jàddee mm-hmm. fooy defee stop mm-hmm. foo dee si intersection kan moo ne priorité mm-hmm. loolu yëpp bëgg leen bëgg leen si jàppale livreur yi mais encore une fois ñoo ngi woo état très bien merci beaucoup en tout cas ñu jaajëfal la rek ci tee teewaay bi xam naa beneen équipe bi tamit mi ngi xaar. Mhm. war dikk indi tamit lu am ñam incha allahu rabbi suba teel toj na de. Ah, yéen yéen tax ngeen moom réew mi jàng nañ jàngat xam-xam oh. génn na fi. yéen a ngeen moom réew mi poñe ngeen réew mi yéen ngi tax nit ñi di tardé liggéey yéen war ngeen fay amande. yaa ngi ñoddi nag yaa ngi ñoddi yaay locomotive bi nekk ci kanam kon soo ñoddee rek ñu topp ci. Aïcha en tout cas dañuy dem rek daal di àddu ci art et en compagnie de Fatima Diop di la gërëm di la sant xam naa moom Ibrahima euh, dinañ ko invité waat ah, xam naa carnet bi tey dafa xaw fees comme tous les lundis d'ailleurs mais faw ñu invité waat leen pour xam fan ngeen ci toll on va poursuivre le cours avec vous euh, bu ko defee tamit ngeen daal di ñu wax nan ak naka la ñuy def pour adhérer waaye pour am moto il faut combien ci budget ñaata la nit mën a dem ngeen defal ñu bilan bu gën a yaatu bu ko defee ñu gën leen dalal peut-être ci entrepreneuriat bu ko defee dinañ la boole ak Binta baax ginnaaw loolu art et lettres ce sera tout de suite. équipe bi moom dañuy koy dalal deuxième team en compagnie de euh, Fama Ba waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di euh, Pape Assane Seck ah Seck euh, néegi mbaaw dinaa la mën a tàgg de xaw ma danga maa mere xaw ma ma tey laa lay jaxase ak askan bi mere ma tax nga bàyyi Fama nekk suñu diggante sori ma noonu loolu lu xew